li ñëpp wax duñ ci reveniraat ñu ngi leen di ñaanal li ngeen liggéey yàlla barkeel ko beneen bi on voit bien que vous faites des efforts bu et vos collaborateurs notamment des impôts et domaines de la douane et des autres euh, secteurs yi nga xam ne ñoo ne ci ministère bi pour mën a recouvrer ay recettes pour mën a permettre à la population sénégalaise ñu mën a euh, def li nga xamante ne si moom mooy seeni besoins yi nga xam ne en matière de lekk la en matière de naan la en matière de d'électrification la ak yeneen ak yeneen. monsieur le ministre may wax rek non loolu laa leen di waxal parce que ñoom ils transcendent les régimes régime bu ñëw da leen fii bàyyi te comme président Macky Sall def na 12 ans ba pare te day dem incha allahu rabbi keneen kuy ñëwit di Aline Mamadou Dia. bu ñëwee ànd ak ñoom bu ko defee ñu liggéey dëkk bi monsieur le ministre finance finances et du budget par rapport ak le budget dañu wax ne taux de croissance euh, taux de croissance bi nga xam ne moom ngeen projeté à 9,2 pour cent xëy na ñenn ñi wax nañ ci taux bi ndax di ngeen ko atteindre waaw wala déet mais ci biir atteindre boobu ngeen ko war a atteindre ci recette yi da ngeen a exploitation du pétrole bi da ngeen ko wax ne dernière quinzaine wala boog dernier trimestre bi lay doon au mois de juillet loolu kon ci prévision yi la bokk maintenant comme risque la te mën nañu dem ba soit ñu exploité wala ñu bañ a exploiter ci yan facteur ngeen di basé wu pour mën a booster li nga xamante ne si moom mooy taux de croissance boobu. beneen bi monsieur le ministre j'ai envie de vous poser une question c'est-à-dire qui paye l'impôt au Sénégal est-ce ndax sénégalais lambda yi rek la ñi nga xam ne dañu nekk yor boutique yi ndaw yi wala ñi nga xamante ne si dañu yor ay entreprise wala ñu yor ay société yoo xamante ne si ñoom it war nañoo mën a indi seen wàll. te ñu wàññi li nga xamante ne si moom mooy exonération fiscale yi parce que loolu dina am lu bëri loo xamante ne si du ko mën a euh, compléter. beneen bi monsieur le ministre muy dellu par rapport ak euh, flux financier illicite yi wax ngeen ko ci document bi nee ngeen ne di ngeen ko renforcer ñuy wax foofu rek il faut que ñu gën ko mën a renforcer pour permettre suñu finance publique yi ñu mën a transparente parce que dafa am ñoo xamante ne ci ci enrichissement illicite ci fraude ci la ñuy dox ba recette yi nga xamante ne si moom la ñu war a am en fait pour mën a def li nga xamante ne si moom mooy de les besoins de sénégalais dafay des monsieur le ministre par rapport ak euh, ñaari dëkk nger ngeer malal ak euh, dëkk bu ñu naan yaral caam yaral caam problème mu hôpital la ñu am émigré yi cotisé nañ ba am ko mais médecin bu ñu leen affecté pour mu ñëw foofu mooy doon problème ngeer malal problème mu ndox la ñu am forage yi li mu war a marché dafa des bu ko defee ñu mën leen jàppale ñu def li ñu war a def président Amadou Ba nag yërëm nañ ko parce que ñi ko war a défendre boobu ba léegi président Macky Sall président Macky Sall la ñuy wax dimbale leen ko wàcc sur le terrain comme ça mu mën a am résultat <laughs> soxna merci euh, la parole est à